Xelass lamb ubbi na tey tey ngi ci biir ndënd yaa dégg Momo dégg Mbaye ak ci droite bi lamba ngongu ndoysaan déggal loolu xool sabar yi ko wër bëgg nga sif jox Franc Franc ngay ñaan Franc ngay ñaan ndaysaan Franc gaaya Franc waa këram xool public bi mbooloo mi xam nga gaay dañoo namoon lamb nag dañ koo namoon de waa ndaysaan gaaya a mun làmb saison ba ubbi na ndaysaan dégg nga mbayang lum mais bés maa ngi lay ziar maa lay delloo ziar ba xama kan entraîneur wu Cheikh Tidiane Niang non lii mooy làmb Franc waaw Mamadou Moustapha Sall waaw mu mel ni gars yi dañoo namoon làmb bés te Boy Faye des na Boy Faye ñëwagul Boy Faye a ngi waaj a ñëw waaw waaw lii làmb làmb làmb lu simple entraîné mbër yi jar milliard moo tax boo gisee 15 heures stade bi commencé na fees waaw donc lutte simple daal macha allah ci kaw ci kanam ren nag ñuy accompagner Dex di ko diffuser combat bi yëpp pour amateurs yi nekk ci diaspora bi di ko mën a seetaan en direct. ci seen affiche ci seen affiche point com. waa prix bi seerul. non 5 euros waaw mais incha allah di dinañ def ay ay package parce que gala Jax yi bari na mais le plus important mooy. ñu ko mënul woon seetaan en direct ñu koy seetaan en direct. dóor ci suuf El Hadj Warndo moo yëkkati dóor ci suuf waaw waaw foofoo Equivox TV image yu ngay am waa reportage yu neex waa du mën a ñàkk parce que nag olof a ko wax ku bindoo tama faw ñu tëgg la ñaari boor wallaay du mën a ñàkk ndeysaan poids léger bi bëri Diaks sa fi jaar daw na jëli déet waay ndeysaan Émile François Gomissa Ngongu cey hélas moo yey ay millions du caaxaan ndaysaan jël ma Franc daw lu xew fee jël wala lan laa gis gis naa soppeeku cey lii ngongu l'entraîneur Boy Faye 2022 Franc ko bëgg a yaay lan doole wala lan Franc koy daan xale ba jël na ko busul wala lan xale bi tibb na tànku Franc lu mu koy def Franc koy daan de wala ah way 3 appui wala daan na ko def na 4 appui def na 4 appui eh def na 4 appui daan na ko booy daan nañ na def nga 4 appui. ngay lewaatoo boo xool la ñetti combat ngi ci géew bi jaay doole lan xale ba bañ na de mbaa xale bii du la daan eh xale booy daanu nga booy daanu nga bu yàgg daan na la bu yàgg kii dey wër ndombo wër ndombo buddi dëj na la dëj na la dëj na la dëj na la daanu nga ba jaaxaan waaw ne biti ee way waaw waaw ee way kii lëng nañ ko hélas loolooy lëng mu ngay bañ waaye faw mu ñibbi dañ laa daan dama rek nga ñibbi sangu ji làmbak looloo ànd daa gis rek compétition dañoo namoon lii tax ay mbër lañ toog gëj a bëre waruñu moo tax bu ubbee rek ñëw compétir ndax ñun ay mbër lañ lii rek mooy suñu métier. mais yaa Kaw Gourdin combat ba ñu mujj a jox Kaw Gourdin victoire loolu noo ko dundee. baaba loolu ci yow laa ko déggee ni nga koy déggee en tout cas ñëw naa jël lambu ja sama drapeau mi nga man arbitre ma la jox victoire li ngay dégg laay dégg nii maa ngi toog sama kaw. foo bindu luur wala lese. luur laay bëre. luur mu diisu bëri na ñoog luur fi yëpp kon luur jaaxaluñu bépp luur bu nekk fi bëri na ñoog moom yankaway bëre noonu yankaw agos mu ngay bëree way de Kaaw Siteu war na ko ndombo da koy buddi nu mu koy def bëre oh xale ba bañ na Yanka wëraat na ko dóor ci suuf mu bañ kat appi am na kat appi am na ah way Yanka daa liggéey combinaire lourd yi waaw ci la ñu ne waaw mais léegi ñu jeexal ko après ñu delluwaat ci léger yi incha allah. mu mel ni licence yi nga xam ne moom la mari doon bëree daaw. waaw moom ngeen bàyyi tey ñu ñëw bindoo ko. waaw non c'est-à-dire euh, dañuy àndaale seen certificat d'aptitude léegi bu ñu ko àndaalee promoteur bi moo leen koy fayal seen renouvellement noonu la demee. ok Jax moo fay renouvellement yi. voilà c'est ça waaw. muy la am solo. voilà merci beaucoup. réew mi namoon nañ làmb xalifa. waaw mais c'est normal parce que aada la cosaan la sport la. loolu moo tax voilà ni ko yeneen sport yi di fi defee di ko defee tamit noonu la làmb war ko defee moo tax alhamdulilah ñi ñaan mu ñu dugg ci saison bi ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin voilà merci beaucoup. koo koy xalifa so bëri mais blessure yi en général mooy gën a garaaw ndax chute yi ñoo tax quoi waaw. fajagoo kenn tey. pardon. fajaguloo kenn. aha kay am na ñaar ñu ma fajagum. waaw. ban problème lañ am. non kenn ki dafa am euh, blessure ci euh, nopp bi waaw kenn ki dafa am corps étranger ci biir bët bi waaw. mais garaawul daal. non non garaawul garaawul waaw. kontaan si yow. waaw ok kontaan si yow merci. kon buñ ko commencé dañuy kontaan kontaan nañ trop jërëjëf gërëm leen yoon it. o fogole sereer gaañal o fogole sereer maxey simna fop o kiino fo simangolum Ah, a besto xa i content na trop keke i njeg o layanga te njom njom seereer kon a njom seereer a ke i mbi' ke tolunu ngirim ke xotetna ministre des sports bo an lang ngidma CNG ngidma fop ngidma nuun itam no we saqna a télévision ke ndeysaan Baye Mandiaye bu Guédiawaye mooy bëre noonu moo féete à droite moom tam wàcc na ci simple bi donte am na combat frappe moom ak bébé bis mi Fallou Ndiaye ko tëgg tey nag daa ñëw ci simple bi ndaysaan lambi simple ji lu xew arbitre arbitre na leen de waa ndaysaan combat baa combat yaa ngoongu daan na la bu yàgg. tegul ci kawam ñun. kii du tapet loolu laa bëgg gars yi xam ko. non non fee ngeen toogoon laa wax fee lu ngeen fa doon wut laa wax. fee danoo ànd ak champion mu ñëw amul fu mu toog ku ne xam ne dafa ngeen bu si woon pour bëre licence baa ci poosam est-ce que yaa dégg ñu ñëw ne. alors dama leer ñëw toog loolu mais danoo bëgg ñu xam ne kii du tapet. waaw mais fi ngeen daggul bi est-ce que am ngeen droit toog fi droit toog fa mais champion bu mel ni Mbaye Tine ñëpp xam nañ ko ci lamb mais loolu est-ce que est-ce que mais borom lamb ji day jaay. du yoon xam nañ ko mais pour ñu xam ne Mbaye Tine champion la waruñu koo sàkkal fu muy toog ci làmb. non Babacar kenn waruñu koo sàkkal fu muy toog ci làmb. loolu laa bëgg ni làmb ji lay mu jeex. fee dañ koy jaay. mais kenn toogu fi. mais fii kenn toogu fi Babacar am nañ droit toog fii. mais dañ koy jaay dañ koy jaay. waaw ah, mais làmb jeex na ba pare Babacar. waa gars yi lan la waaye mooy loolu quoi gars yi yàlla seen xol. dara ponkol mbiru eh, Babacar eh. mais 3000 seer tey te làmb ji nga. ar kan moo fi ne tey. Babacar ponkol bi danaa ko ponkol bi danaa ko doo dara taxal ngemb dama koy foowee. kàlla ponkol mais toog du dërëm day liggéey rek kii day saafara non day liggéey kii di tapet nga xam day liggéey kii nervi la liggéeyam lay def nervi la nervi tam rawli bët lépp soppeeku na si maa ci lese bi kay foo toll ah ci deuxième tour bi waaw kon bëre nga ba daan waaw bëre naa premier tour ba daan di xaaraat tirage waaw di xaar deuxième tour rek daanaat rek waaw aha tur la. Vieux Maga Ndiaye. waaw. Vieux Maga Ndiaye ndondol Njemaan. ndondol Njemaan. waaw. yow maa ngi yow a dëkk. ah. yow sama mbokk nga kon. ñoo dëkk man xam naa la bu baax. waaw. waaye kon maa lay ñaanal kon yàlla na ko jël tey yow laa faral. non amin amin dama koy. yow laa faral tey. dama koy jël incha allah. da nga jël lese. amin amin amin merci waay. non non laaj rek. waaw daam ñu nekk suñ ginnaaw. il faut que tey def ndànk jël lamb ji incha allah. waaw yaakaar dinga jël làmb ji tey. bu baax a baax incha allah. Boy Faye ngi fi. waaw. Fara ngi fi. dëgg ngi fi. waaw waaw dañuy compétir rek. mais xel mi dal na. ah. xel na tey. ah waaw. kuy jaay yamba du naan maa ngi nii. voilà kon baax na jaaykatu yamba. yamba du naan maa ngi nii de. déedéet kon baax na. kon baax na waaw. ah. ana sa daa daan. non non daanuwul de. da toog kat mel ni ku xaw a tëdd. Ah, gis nga. moo daana daanoogul de non dañoo ñëw pour jël drapeau bi waaw. kii moom daa daanu. mbër xanaa dañ laa éliminé. waaw ah? dañ laa éliminé xanaa. man waaw. premier tour. waaw. foo bindoon luur. waaw ah. beneen yoon rek xam naa ne nga ñëwaat. Ah? beneen yoon nga dikkaat xanaa. waaw yaa ma gën day ñëw incha allah. dimle numéro beneen yoon kon. incha yoon yemul ci ah? ma ne yoon yemul ci benn. incha allah dal naa ziar baax a baax weer. tey daa tey daa mel dikk ak xel mu dal. waaw dama am doole xale laa dama am doole moo tax heure ma duggee sama xel day dal. billahi wallahi heure ma duggee sama xel day dal dama am doole. gis naa booy fay. ci kanam léegi mu leer. gis naa Franc. léegi mu leer. Cheikh ñoom mag léegi mu leer. ñoom ñëpp laa defaral tey incha ñoom ñëpp doole xale dama liggéey. mel ni ren bi yaa njëkk a jël tournoi ren. waaw dañuy sant yàlla at tey lañ koy doog a def quoi. waaw at bi lañ koy doog a def Mm, yàgg nañ koo def mais nañu sant yàlla sàkkaat ñu koy njëkkee rek incha allah jaajëf Babacar jaajëf daw na ŋoobu ko da koy bot raam waaw foofu mu dugal tànkam bi génn fa daw na bëggoon ko xar mu bañ looy signalé foo jëm koo bëgg a takk ŋoobu ko da koo bëgg a kal ca ginnaaw xale ba bañ ràcc bañ droite ci biir ngemb ci biir ngemb ñaari loxo jàppante borom li am na lu mu bëgg loolu mooy sukk sukk ak sa benn tànk xanaa sukk fàq lay wër waaye du yomb ndax kii fi mu dugal loxo droite bee tax loxo droite tax xool ba bu jàppoon mu tare rek ëpp ëpp ëpp hélas bëre metti na waaye bëre metti non lii métti na roof na ko ko de xar xatar bi dan na ko ba war kawam oh waaw waaw eh way mbër bëgg naa waaw naa la combat bi tar na de ah combat bi metti woon na de bilaay walaay xale lañ ko waa dañoo war a jàng góore tur nan la ah nan la Mbalka Mbalka Mbalka Mbalka dëkk Mbalka dëkk waaw waaw Ngunjaan laa deuxième tour wala ah yaa ngi deuxième tour yaa ngi ndax yaa ngi deuxième tour waaw maa ngi deuxième tour troisième waaw troisième waaw waaw kontaan ci ba ci kanam inshallah ah waaw jaay merci delloo ziar jàmbaar Leyti Khady Diouf Leyti Ndong en ko la en ah. ko rakul Leyti la ba léegi benn la ah, rakul Leyti waaw Ndong en ko mu mel ni tey ah maanaam amati ngeen contentement par rapport ak bu saison bi ubbee. waaw ñun ñëpp kontaan nañ parce que looloon tax tey ñu ñëw jàppale suñu mbokk promoteur euh, xool si aussi nu ñu préparé wu ñun tamit suñu bopp pour mën a organiser yeneen bés yu mel ni pour gën a suqali làmb ji encore parce que fi mu nekk nii làmb laaj na suqali ndax euh, amoon na retard te kontaan nañ ci bés bi bu baax a baax am nañ satisfaction bu baax a baax aussi di ñaan euh, li ñu téye woon yàlla bu mu fi ñëwati ci barke yonent bi looy préparé ren yow en tant que promoteur. ren ñu ngi préparé lu rëy parce que euh, mois de décembre la ñu ubbi ñun suñ sa suñu ki euh, ubbi ji ko waaw di waajal euh, drapeau boo xam dañu sargal lépp. Bakar waa Loul Sessène na nga fa ñu ngi sant yàlla bu wër tey noo gisee lamb ji tey. lamb ji neex na de sérieusement kon. koo yaakaar moo koy jël tey. ah. koo yaakaar ni moo koy jël. ah ku gën a entraîneur doole moom laa yaakaar de. mystiquement ku gën a pare. ku ah man de xooluma ci mystique sax man wax dëgg fa yàlla ku gën a pare daal moom wax dëgg fa yàlla yàlla ko xam ku gën a entraîné yaay jël lamb ji waaw wallaahi. kilifa gi siyaar naa la. loolu siyaar bu wér sant yàlla ba. mu mel ne tey contentement am na par rapport ak lii nga xam ne gars yi dañ ko namoon muy lamb. waaw kontaan naa bo baax de moom lamb moom ku koy dund boo ñëwee seetaani lamb rek da ngay waaw. am na solo tur bi nan laati. ah la. Basirou Sarr Basirou waaw waaw. dëkk fan Diourbel wala. non laa dëkk Ndiarème côté Ndiarème waaw ci Ndiarème la bokk waaw merci waay kontaan naa bu baax. bu Joal laa dëkk nag fi roi des dëkk fa dëkk. tur nan la. ana waaw. Euh, lamb ji tey ubbi waat na mu mel ni contentement am na ci xol yi de. waaw lamb bi moom neex na moom ñun lii lañ xam lamb ay doomu séeréer lañ dañuy dund lamb namoon ngeen lii daal. namoon nañ ko moom macha allah. kuy sa mbër yow. ah man moom Yaxya Diop Yékini mooy sama mbër ak Papa Gueye. muuma Papa Gueye muuma. Cheikh Tidiane ñaa ngay yëngal xoolal xool xale bi. hélas jógal ma woon la wuyu ma hélas. hélas xoolal lii. booy bi nee na ñoom ñëpp lay dóor. Moustapha Sall ne ñoom ñëpp lay dóor dégguma ñoom ñëpp laay daan ñoom ñëpp maa ngi ne xale fuuf ñoom ñëpp laay si waay cey loolu yaa dégg xale bi nee na ñoom ñëpp lay duma loolu la wax fara xale bi nee na yéen ñëpp fara ngi jàpp njaamuram fara nga jàpp njaamur fara ngoog ma lii ndaysaan yankaaw la daw na jël ko yankaaw jël na ko yankaaw jël na ko yëkkati dóor ci suuf oh waaye yankaaw mi ta yaram mi tàng na de la ilaha illallah tàng de a ah, baaw ñu ay xale lañ te lii moo nekk suñu deret kon su yëngoo rek suñu deret day yëngu barke alxuraan daa mel da ngaa yokku liggéey bi de waaye xale la ñam ñu nekk suñ ginnaaw di sonn ngir ñun kon ñun ci liggéey rek la ñu war a dëkk waaw. ci kanam. ci kanam rendez-vous ci kanam jasaaka bi bu bees na ko ndombo buddi na ko mu bañ mu bañ xale ba bañ na de xale ba bañ na de buddi na ko dóor ci suuf xale ba bañ ee eh! jël la amagul de xool Franc xool Franc xale ba Franc na ko Franc daan na ko ee eh! waaw waay waaw daw na jël ko daan na ko daan na ko Cheikh daan na ko xool Cheikh Tidiane mu ngoo nguy ñëw na ko tibb na tànk ba da koy dëj booy toog nga daan nañ la daan na la yow bi la na ko jàpp na ko sol na ko yankaawa ngay bañ jaxabal na ko daan na ko oh yankaaw jël biñ la daan rëy na waaw waaw oh laa ilaaha illallaah waaw bëre rek foo toll nii waaw ci quart final yi waaw yaakaar jël déggoo ma de waaw amul picc a bëre sama mbër mi hélas sama booy bi daa mën a bëre vie manga ñaaye ngongu Cheikh Tidiane ña Cheikh Tidiane jël na booy fay jël na booy fay Cheikh Tidiane ñaa jël na tànku booy fay koy def daanu na Boy Faye na ko moytul cey Franc cey Franc ew way Franc ko bëgg accéléré xale ba sol na ko Franc da koy daan wala sol dëbb naax dawal sa loxo ca loxo droitu Franc baa biir ngemb la xale bi jàppul de booy mbaa wóor na demi-finale laissée daan jaxabal na la daan na la final lese Vieux Manga mbaa ci génn tey mbaa ci génn mbaa di ci génn mbaa ci génn sembe nag Manga ñu ngay jeex bëre doo daanoom Vieux daanu o oh, Vieux Manga Ndiaye daanu na Abdoulaye Noga ah. am nga jàmm maa lay delloo wa yaa dem final lese waaw maa dem final lese waaw tur bi nan laati Abdoulaye Ndong waaw jóge fan Fisel Mbadaan Fisel Mbadaan garge doxawul ko da gën waaw waaw ngi nuyu waa Fisel waaw maa ngi nuyu waa Fissel ma kenn kontaan ci ñoom bilaay ñu ma waaw. kon da ngay jël leesa bi waaw loolu laa bëgg de waaw. dégg nga waaw ba ci kanam. waaw amul waaw. maa ngi yaa dem final. waaw looy wax ci final bi. waaw final bi kon d'habitude rek ni ko lan bëree waaw foo jógee ma mbarñi waaw kon daal tey yóbbul Quench final bi waaw ma ne final bi da nga koy yóbbul Quench dama koy yóbbul Quench tey incha mu neex yàlla suñu borom waaw nuyu waa Bargny waaw noonu lay fay waaw Bargny Bargny la waaw waa ram-ram ngi nan ma ra waa maa ngi ñëw indi leen ndam li incha allah a caaray gépp waaw waaw si kanam incha allah Franc nga ca ruq ba lii lan la. ah lii mooy wongu. wongu lii la fesu naaru góor di def. lii mooy wongu. wongu. ñaari xale nga ca ba tey rek Boy Faye na ko Boy Faye war ko da sotti daan ko Boy Faye war na Fils de sikki Fils de Batlen ba ding fi génn sukkër bi walla dawal ay waay mbër may nu ko e mbëre daan na ko daan na ko daan na ko da koo sukkër bi daan ko waaw dem rek yàlla na jàmm yàgg sa diggante ak Franc loo ci yàlla na yàlla ànd ak ñun affaire bi jarul wax yàlla bari na sutura yàlla na yàlla ginnaaw Franc ngeen jàkkaar lool tey la dimanche ndaysaan tey la 3 octobre 2021 Diaks moo fi tegoon 3 millions final lese ba seeni bu barñee ko gàddu Ablaye Ndong la daan final luur bi booy faye ngongu ak franc 100 pour cent parcelle ndax booy fay ku ne xam ne ne mu nga dóor dóoraat ca ñoom Garga Mbossé ak ñoom sos Franc mu nga fa nga xam ne mooy Jàmbaar Wrestling Academy ca ñoom Sow wala boog parcelle mbooloo waaye loo ci mën a dégg kon lépp parcelle daal la noonu la demee tey Franc Boy Boy Faye daw na jëli Franc Franc génne na ko Boy Faye Franc fay fara boy fay fara poids lourd bi ku 2 leen tagaloon benn 1 million bi ñu tagal ko les ku jël final bi ci poids lourd bi ñoom ñaar waa di nga yóbbu 1 million sa kër ki ñu daan am 700000. ku na ko franc yokku na ko booy fay sa wet googu franc bu ci demee du baax wala ding ci génn tee nga loolu franc foofu mu teg loxo droit tam boobu. diw sàll taalibe sëñ Babacar Si marché Thiaroy moo ma solal tay ci kaw ba ci suuf di doomu bawal dëkk Mbomboy Aliou di jaay ay yére fa nga xam ne nii moom mooy ca marché Thiaroye maa ngi koy nuyu di ko ziar Aliou sal ñu gën koo xam ci Aliou bu Yankaaw tey moo ma solal hélas Aliou Sall Ngom sal nga xam ne lépp moom la nekk ca ndondol waa tey Aliou ma solal waaw ah, waaw loolu dama ciy bëgg koo bokkal ab dëkk yor boutique solal la loolu ma solal tey mbootante nañu Franc wër na ko Franc wër na Boy Faye Boy Faye doo ci génn Boy doo ci génn wala dina ci génn Boy Faye génn na ca eh. Franc ngeen jàkkaar lool Franc nga Parcelles Boy Faye nga Parcelles ñoo finaalu nag Parcelles moom lu mën a am nañ cër ci làmb waaw Parcelles moom loolu waaye mën a wax parce que nag bari nañ bari mbapat léegi Franc Opeuli ah Boy Faye ak ñeneen ak ñeneen booy Faye nga wëri tànk Franc bañ waaye Aliou Sall daal kenn du yow yaa de daw na jëli ko daw na jëli ko mu génne ko Boy Faye Franc tey di dimanche 3 octobre 2021 jàk sa fi tegoon xaalis bi Rimka Couture naa la waaye ana sama doomu ndey ba Samba Kara taalibe maam Cernu maam Cernu borom daaru kenn du kooku borom daaru billaay maa bëgg kilifa gu mel ni kooku borom daaru dëgg ya muy wax ah mu nga ca koy maamam bàyyi woon de borom daaru Serigne Samba Kara Serigne Saliou Khoule Franc Boy Faye bi combat de jël bi mën naa yéex tey ndax Franc li mu bëgg est-ce que Boy Faye dina ko nangu Boy Faye li mu bëgg ndax Franc dina ko nangu ñu nga ca de Matar ak leen ngeen bëree boo xoolee benn jàppante lañ fi jot def avertissement mën ngaa ñàkk boo xoolee day joué léegi parce que gis na ne miitaa li ci desati bëriwul su booy fay mu jël avertissement da koy dal di gagné rim kaa da ngay jël avertissement. boo sàgganee yaay ñàkk. ndax combat bi léegi mu jeex te jël nga benn avertissement Franc gis nga daa jàpp déglu ni moom jàpp déglu ni moom. Franc dafa jàpp rek déglu dootul bëree parce que xam na na temps bi jeex na te Boy Faye am na avertissement Franc léegi li ko war lay def mooy serré combat am gis nga gañe na ko gañe na ko Franc gañe na ko ah oui Franc vainqueur de Boy Faye